Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ma ngi juddu nuyoo di ziar di balu ñëpp ak te di leen baal ak di laaj ba xam sama mbokk julli di, ak mbokk talib Tunkara est-ce nit la dama wor de julli ba pare yor sama telephone. mais nit ku nité du mel ni Tunkara yow sa li nga fi def naan dama doon complot dama bëgg dil pour gars yi xam ne yaa ngi liggéey ah kon yow li nga def yëpp complot la ak trian ak bon président première dame bi ngay wax yaayam moo gën sa ndey tunkara ndax yaayu première dame jur na première dame te yow sa yaay du jur gardien sa yaay du jur chef de quartier ndax gardien yi kat dañoo baax te dañuy liggéey di daan seen doole booy yow sa yaay du ko jur président nag moom Tunkara du yow te doo moom nee nga yor nga oto bu rafet yaa ngi sol yére yu rafet waaye teew laa nekk dof dof da mën nga sol yor oto yor xaalis te dof nga ndax dof mooy xalaat xalaatu dof yi tunkara seetal yàlla seet yonent bi te nangu dogalu yàlla suñu borom maki raw na la te dootu la dabat dootoo ko dabati mukk tunkara rakku président Macky Sall yi du ñu yow te doo ñoom man bugguma doon Tunkara Aliou Sall ak président Macky Sall ak première dame ba ñuy liggéey Tunkara sa yaay da doon nelaw sa yaay bokkul ci jéeg ji liggéey ndax boroom ku ndeyam liggéey day jur première dame ku ndeyam liggéey day jur président de la république waaye ku ndeyam di fo day jur koo xam ne li yàlla dogal neexu ko mu toog ca àll ba di xaste di xas ki yàlla teral di xas ki nga xam ne yàlla dafa dind ci cëram jox ko muy état di président de la république de Sénégal du caaxaan du caaxaan de du ku jóg doon ko Tunkara nga ku ñu mel ni yow danga feebar fièvre bangsi sa biir xol di la travailler bëss buñ la yobbu hôpital kenn du la fajj ndax président fi ko yalla tek ku metti sa xol ngay dé yow tunkara man ma yag na la suivre nak mais musuma ci wax man la Daba maki Touba jambu nangul yalla dogal ngay noppalu nga bañ li yalla dogal ciono dikkal na la te fankul mur ki ñaan dafa tardé dafa xaar ba yalla dogal kiñaan soog a ñëw te kar da nga bok ci ñu bon ñaan tekki wo dara kaw ak suuf ndax dara gënul bon nek ci sa rew yalla suñu borom dogal lam dogal ci sa rew nga dem ci rew jàmbur di fa wax lu waxut diko jëmeul ci sam rew ci nga xam moy président de la république du Sénégal di sa président tun kar ya bon li ngay wax kura maki ci yow la ne ndax jigen gor go gis muy xass jigen rek na ndayam mel mom lay wax ndayu jambour ku am rek am nday do yëkkati baat bu ñaaw duko jëmele jëmale ndayu tunkara am nga nday nday la boot nampal la ba nga toll ni nga toll jigen nu mel jigen la tunkara joxel cir Premier dame du sa morom du sa mapando koku da tok juddo ci rew mi magge ci rew mi tok ci rew mi di servir senegal di dimbali néew gu dolay di tabaxi jak di tabaxi juma di dem ci daara yi di dem keur kilifa diine yi di def lu bax yo lo def wax lu bon tunkara wax ju bon ak complot naan dama bëgg complot ak yo bañ xamne nit ñangi ngi da ngay liggéey ah yow ci complot ngay dox ci hypocrite ngay dox ab naafeq nga am naafeq day solu ba jekk yor otom bu rafet di ko dawal yor caméra yor yor téléphone di filmer boppam di wax lu dul dëgg loolu mooy naafeq loolu mooy dof loolu mooy iñaan lépp lu gën a bon ci àdduna dafa dégg dafa daje ci yow tunkara lii bon yépp ci àdduna daje na ci yow naafeq bon soxor dof waaye président li yàlla dogal ci moom def na ko pare mënoo ci dara sa morom mënu ci dara li ngeen di bon di ñàkk fayda di iñaan soxor damaa woor de billaahi wallaahi wa taalaahi damaa woor julli sama waxtu tàkkusaan ba pare yor sama téléphone fi ma yoree sama téléphone laa defee li may def maa ngi koy seeral yàlla waaye tunkara yaa bon waay